sax yéenekaay gi nee na yokk ci li nga xam ne mooy station Total am a xool a na ñaari nit ñoo xam ne ñàkk nañu seen bakkan ci manifestation yi nga xam ne am na ni ki démb am na ku ñàkk bakkanam am na ku ñàkk bakkanam yëmbal yéenekaay gi di Vox Populi nee na ñetti nit ñoo xam ne ñàkk ñàkk nañ seen bakkan ci manifestation yi mbir mi nag doy na yéen a kaay gi di réew mi quotidien xëy na ko ma yeggale nee na am na bene nag ASP boo xam ne gars yi dañu ko jàppoon sotti ko essence bëgg ko taal yàlla baax yéen a kaay gi di li quotidien nee na en tout cas li am ba de sàll tey jii a juma ji boobu muy tuule réewum Sénégal dina tàkk yéen a kaay gi di laas nee na ko bu dee réew mi sax tàkkul ba pare yéen a kaay gi nee na démb jàmm gën a yëmbal ak biir réew mi yëpp maanaam tàngu na jër journal bi nee na Sénégal jamono ji safara ak deret moo fi jaba jonge yéen a gi nee na ñi nga xam ne nag ñooy waa Sen TV ak waa Walfadjri ñooñee ñoo si gën a loro ndax waa Sérera dañu leen a coupé seen signal démb RFM dañu ko attaqué taal fayoto chaise bu soleil dañu ko attaqué taal ko caxte-caxte ko mairie bu parcelle dañu ko taal yéen kaay gi nee na bëri na ay Sonatel ki banque yoo xam ne xale yu song nañu ko journal bi du Source A ah nee na gouvernement bu Sénégal ñoom génn nañu ab communiqué di dànkaafu nga xam ne maanaam ñooy manifestant ñi nga xam ne ñoo leen yebal journal bi nee na Pikine tàng na jër journal bi nee na Guédiawaye tàng na jër journal bi nee na Parcelles démb tàng na na jër journal bi nee na démb mbaaw tàng na jër yéen kaay gi nee na bëri na ay bus Dakar dem dikk yoo xam ne saax-saaxee nañu ko tribunal bu Pikine géej waaye saax-saaxee nañu ko waaye nag étudiants yi nga xam ne ñoo nekk université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru ñoom tim kenn demul ñu des université neexul ba neexul waaye démb université Cheikh Anta rek ndax université Gaston Berger démb étudiants yi ñoo ngi woon ci mbedd mi waaye nag tey jii ci ajuma ji vendredi de tous les dangers na Jurbel mboolem li nga xam ne ay lycée ñoom tim dañoo génn ci mbedd mi tëj classe ya yéen i kaay réew mi na rassemblement islamique du a baax li nga xam ne moom la ñu doxalee ci mbiri Ousmane Sonko ndax nag ñoom jàpp nañ ne ni ñu def Sonko daal maanaam état de droit nanguwu ko comme nag Ousmane Sonko nangu woon naa wujj daal koo bàyyi mu daal di dem wujji waaye nag koo nangu waa rassemblement islamique ñoo ngi i kaay gi di réew mi quotidien ñoom nee nañu askan wi seen bopp maanaam ñoo amatul confiance ci justice bi nga xam ne moo nekk ci réew mi ak institution yi loole na crise de confiance la yéen a kaay gi di a nee na ajumay tey jii soo moytuwule dina daal di ndax am na ay manifestation yoo xam ne ñi nekk ci ko jige bëgg nañu ko amala journal bi nag nee na préfet bu ndakaaru daan na koy tere waaye ñi bëgg a marche ñoom nee nañu tey jii daala ñu bàyyi leen ñu marche ak ñu ñàkk leen a bàyyi la ñu yemale danañu marché par force yéen a kaay gi réew mi ko di jee xëy duñu xibaar naan ñu dossier tàng bii nga xam ne mooy dossier bu Ousmane Sonko te ñu dénkoon ko juge Mamadou Seck huitième cabinet Mamadou Seck bàyyi na dossier ba doyen des juges Samba Sall moo jël dossier bi démb sax dafa convoqué woon ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko Ousmane Sonko na ko jamono ci dañu maa garde à vue waa man dañu maa garde à vue ci ay trouble à l'ordre kon lan moo tax ñu may woo ci meneen mbir lànk kandaare bañ a dema ci la ñu nag yónnee Ousmane Sonko ab mandat de mëne tey jii lay jàkkaarloo ak juge Samba Sall maître Bamba Cissé nee na lii nga xamante ni moom lañ def ci dossier Ousmane Sonko di ko woolu ni ki démb 17 heures loolee nag kafuyas moo am am jamono ci ci li nga xam ne mooy ci dossier bi yéen a gii di libération nee na mbir mi ni mu demee daal maanaam juge huitième cabinet Mamadou Seck mi nga xam ne moom lañ dénkoon dossier bi dossier bi amaana dafa tàng ci moom mu daal bind ab lettre premier président cour d'appel bu ndakaaru na ko dossier baa ngi nii premier président cour d'appel bu ndakaaru jël dossier bi dénk ko Samba Sall Samba Sall tey jii lay janoo ak Ousmane Sonko yéen kaay gi nee na Khalifa Ababacar Sall mi fi nekkoon maire bu ndakaaru ak Malick Gakou ak moom ne jàpp gi nga xam ne jàpp nañ ko Ousmane Sonko tegewul fenn ba bi ñu fekk fa moom nag na askanu Sénégal nañu génn résister yéen a kaay gii de la témoin nee na en tout cas démb bi tàng na dañu koo baare coupé ko fi tolloo ak jaaro yi daal di koy sax-sax daal di koy yàq yéen a gi nee na njiitu réew mi di Macky la moom ci boppam moo war a génn ci noppi gii nga xam ne moom la noppi wax ak askanu Sénégal moo gën ñoom ñu nekk fii naan force restera à la te loolee xal yi ko en tout cas YouTube bi ak li nga xam ne mooy internet bi ci Sénégal dañu ko coupé ni ki démb yéenekaay gi di Dakar Times nee na en tout cas Dakar pëccaxoo na lool xale yi nag dañoo violé li nga xam ne mooy couvre-feu bi janoo ak ñi nga xam ne ñooy takk der yi yéenekaay gi nee na xale yi sax dañoo dem ba dominé ñi nga xam ne ñooy takk der yi ni ki démb Ndakaaru njaay ak ci biir réew mi maanaam jax na yëngu na la ko waral bokk na ci mbiri Ousmane Sonko yéenekaay gi di Les Échos waaye nag nee na Ousmane Sonko attention de soo muy tuulee tey ci danañu ko mandat dépôt leen doon may seen revue de presse